maa ngi jël. ndeysaan. maa ngi jël maa ngi jël. léegi ko waxtaan léegi ko waxtaan. ndeysaan Ama Diango waa Demba Sy jaxat sama jarbaat kontaan na ci yéen. wallaay bay. sama nijaay Alaaji Diouf. waa kër Pape Sa kontaan na ci yéen. waaye nag yéen Fall. kaay Scorpion. ñoo ko ñoo ko rab. Scorpion. ñoo ko ci diggante A Boy Scorpion journée Diaks production grand combat ngi noonu dix-neuf heures Scorpion moo féete à droite Scorpion moo féete à gauche ah boo koy xool dafa mel ni moo gën nekk xale Scorpion Scorpion mbokk yi booy xool moo gën a xees ah Scorpion ñoo ngi lewaatoo combat bi combat bu gaaw la ma nar a nuru maa ngi nuyu Aïssa Mbodj siyaar naa la Tane Zeynab Scorpion dugal na léegi Tane Ramatoulaye nuyu tonton Omar maa ngi lay nuyu yéen wax ñaan yaa ma toll maa amin siyaar naa leen bu baax a baax a baax sama tukkee maa maa ngi leen di nuyu cat ba cat a boy scorpion a boy dugal na léegi a boy scorpion ñoo ngi lewaatoo léegi yéen a ngi seen wasaare lamb wasaare maa ngi nuyu sama caméraman Malcolm ah boy à Scorpion à gauche bi combat bu gaaw la ma nu Scorpion mi bu pexeem jubee ci tànku ah boy la jege àndoon nañu ah boy Scorpion ku ci ne coppe sa tànk <laughs> boo xeful loolu du du ma ko bëgg dana jege àndoon ah Scorpion jël nañ la ma wax lañu ñu gaaw ah Boy Scorpion ah Boy ah Boy no daan Papa Boy ñu gis combat bi gaaw noo bëree moom. waaw gars yi ma yeb rek pour bu ma ñëwee ma tey parce que sama dernier combat la ma ko ñàkk si bëre si kaw nit ki quoi mais dama gis bunde rek ma jël tàng bi après kii ko mu. mu jaaxal yéen ñaar taxaw ngay daw muy daw di loolu kii la rek da nga doon xam ne nuñ koy waxee sax waaw li ñuy béré la dañuy di ko tàmm di ko béruwaale xam naa ne bu laa wàcce ma dem si kawam looloo tax mu sélectionné pour moom mu ñëw dóor yi ma doon dóor si kaw yee pour moom mu wàcce ma jël tànk bi moo tax. ñu gis la nga ñëw andi mbooloo mu bari la mooy secret bi. waaw léegi suñu mbokku lébu yi la rek xam nga lébu moom mooy loolu. dañoo mën a sot dañuy jàppale mbir voilà la demee. la moo ne sa kanam. waaw man maa ngi fi rek pour ñëpp maa ngi fi pour ñëpp ku ma lamb booleel rek ma bëre ak yow mais waaye gërëm lébu yëpp lébu yëpp képp kuy lébu rek ak sama waa Tëngéej ñi waa Igri Kaay Ba aw seen fay mbër yëpp bilaay aw seen fay yàlla leen yàlla fay yéen ñëpp ñu jàpp si combat bi kontaan naa trop